ku siiw yéena ku siiwal dëgg la ku yàqu yéena ku yàq dëgg la man li may laaj toujours dans votre journal people de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian Serigne Saliou ginnaaw bi ñu relayé fii benn information semaine bi passé jëkk ci benn violence conjugale bi dox ci diggante groupe Mabo di Abdou No Face ak jabaram jooju di yaa nga xamante ne am na ñu benn doom man Seydina Tange Tandian Serigne Saliou ma wax ko ci journal people am ci ay firnde yu leer am fu per fu ma ko teg ginnaaw loolu dafa am benn site bu tudd Dakar Live du la première fois nag c'est la deuxième fois waxoon naa fi benn rumeur maanaam Wally Seck am na ku koy monteel photo tudduwuma tur mu jëlaat li ma wax dem naan Tange Tandian moo wax lii ba mu amee ma woo patron ma ne ko diw mu ne ma naam ma ne ko am nga sañ-sañu reprendre li ma wax mais sooy reprendre li ma wax yamal ci man li ma wax bul yokk loo xamante ni waxuma ko bëgg ko wax loo patron am d'accord bi yoon duggaat na ci kaawu violence conjugale bi mu wax ci diggante kii di No Face di Abdou ak kii di Mia ba mu wax ci nee na loolu yëpp amul d'après ay sources am buzz la te benn journaliste people bu ko wax ku dul Tange Tandian buzz la dañuy tourner clip nañu déglu ju vidéo dellu si waat gis nañ ay révélation yi ci amoon am ak ñenn ñu defoon li nga xam ne moo nekk ñu boobu noonu di No Face mooy Mia ñoom ñaar ñooñu dañoo tasta lu ko waral boobu nekk ñoom kenn nangul génn yey yàbbi ci mbir mi koo ci woo danaa la negul loo xam ne dama ciy wax parce que ñun ni ngeen ko yégee lañ ko yégee waaye nag ci xibaar yu ñu jot ci source yu leer yu ñu ñu am sëy boobu noonu jàpp leen tasul tey tasul ëllëg diggante Mia ak ki nga xam ne mooy No Face di groupe Mabo yaboo ne seen xel dal rawatina yéen ñi nekk seen fans li waral ñu def lii ab bad buzz la yàgg na nag ci ay artistes di def lii créer buzz pour jaay seen produit rawatina nag ci atum bi saa su nekk dañuy gis ne artistes dañuy créer buzz ba ñëpp gëm ko waaye nag nit ñi dañuy topp information ndax information da koy topp am lu l leer soo ko génnee jàpp na bàyyante wuñu dañuy waajal ab single génnee ko bu li nga xam ne ci wàllum violence sax lañ mën a wax la li nga xam ne moom la ñuy def jigéen yi waaye tamit ci couple yi ci sëy yi nan la ñuy dundee ñoom ñooñu a a baax a baax ki nga xam ne mooy Mia ak No Face seen couple maabo boobu noonu tasuñ tey tasuñ ëllëg nga xam ne nag ñoo génnoon def révélation boobu noonu bu yeboon nañu toogaat delluwaat ne xam ne sëy boobu tasuñ te nag nañ xam lan la ñuy wax waa koñ ba jàpp leen bu baax a baax fii ci Dakar Live TV information bu ñu am mooy diggante Mia ak ki nga xam ne mooy No Face couplement ba tasuñ tey tasuñ ëllëg jàpp leen ne information boobu noonu dara du ci dëgg sëy boobu mu ngi dox bu baax a baax a di leen sant di leen gërëm. tey damay ñëw ci ñaar ñii gars naan danoo tas wala tasuñu danoo tas wala tasuñu yéen da ngeen a dof xam nga bu dara xewee Sénégal aadamu na tekk gaa yëpp di laajte aadamo fan la nekk lu tax di a ñaar ñii tasuñu yaa ngi dégg dañuy waajal benn clip tey rek ñoo ànd àndoon restaurant ñoom ñaar dan ma woo ne ma naa leen defal vidéo salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum comme ni taas wax rek ay kii da ko doon dóor nangam nangam danoo tas ñoom ñaar dañuy waajal benn clip dat sangam lay génn mais du ma wax dat bi ndax loolu seen vie privée la mais daal li ma leen mën a xamal mooy man lañ ko def loo mën a leen man du ma yàq sama crédibilité ndax def naa ko fi ñaari yoon. du ma ko defati ci àdduna bi dara jëlantuma ko di leen gisee taas nag dañ koy neexal ci suuf mu génn di duul noonu la affaire yi demee bës la ni def di barabaare xam ngeen lii bu nekkoon dëkk taas porte banaan ko pelan si yàgg na parce ay da koo dóor ak yooyu yëpp yàgg salaamaaleykum kon yaakaar naa ni vidéo baa ngi noonu ñoom ñoo ko seetaan moom moo def commentaire ak beneen waay bi nga xamante ni moom it lu yoonam newul lay dugg mu wax ci xam naa ni bës moo waaj a fay mu bëgg dugg ci élément bi naan moom la njëkk woo en tout cas sequma nga man Seydina Tange Tandian lépp lu ma wax dama ci am firnde te preuve laa ci teg doxuma ci ay buzz waxuma ci ay buzz bërki démb dama dajeek Pape di Fall mu ne ma affaire mia couple maabo bi laa dégg ma ciy waxtaan ak Boubs Boubs na non comme Tange moo ko wax moom lu leer la ko teg mais Pape euh, Sidi na non foogoon sax ay buzz la ay clip Boubs ne ko Tange doxul ci ay buzz ak ay clip lu am lay wax kooku moom ma xam yéen xamu leen ma man lépp lu ma wax dafa ma ko teg soo ngeen gisee ma wax ko violence conjugale moo tax ma wax ko parce que dóor bi am ku bëggoon libéré wu mais su doon couple couple bu nekk day am problème couple boo gis am na kuy fay man am naa jabar fay na fayati na keneen am na jabar fay na fayati na mais violence bi ak engouement bi moo taxoon mu bëgg a libéré wu ndaxte ku jigéen ki dafa ragaloon presse loolu lañ ko bëggoon libéré dama bëgg ñu déglu première partie bi ma njëkk a jot ci famille ñu dellu si boy bi il est extrêmement violent mhm. day dóor ma nit ko mhm. saaga ndey tas nañ plus de quatre fois ma nit di daw di ñëw sama kër mhm. ma koy delloo ñu koy wax ñi dem di ñëw di dem di ñëw man dama mujj dama dem ba moom maar parrain na ko li nga sol boo fi génnee nii xam nga miyaa yow boo seetloo bu njëkk mhm. day yére olof rek danaan sol uh-huh. léegi nag temps ñu commencé sol ay tiim tu vois jéeg mhm. yooyu doo fipp quoi mhm. léegi bu gaañ bañ léegi ñes ka waa ji ko saabu ko ndey jël saagaam réew xotti ko comprendre nga donc euh, loolu soo c'était le matin man dafa xëy rek jël ay ay ay ay moom ma sama sama sama yaay sama lay liggéey donc bu ñëwee mu fekk ma sama biir yooyu ay maa ngi toog si biiru maire bi mu ñëw fekk ma fa ma naan ko yow mooy mel ni fawerekat xam nga tellement que li mu soloon c'était bizarre mais man dañ mën dëgg waxuñu ma dara bon après moom maire bi ñu ànd kenn bu ñu demee kenn itam maire bi ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait mooy moom bu ñu séddu ko donc li mu am yëpp bu ñu séddu ko donc elle a pris son dama def moom mu ànd ak man yi dem këram fekk mbaaw fa la ko fa la waaj a dem fa la ñu ma toog ñoom ñaar mhm. mu jël oto bagage jël violence mm-hmm. ay dóor ay saaga di si am kooku man saa man en tant que grand frère maa dugg nekk sama mm-hmm. <clears throat> lii mooy situation bi am na mm-hmm. man nag maa ne dinaa waxtaan waxtaan ak moom parce que ce qui est sûr di waxtaane ñu ngi koy commencé di lam kon ba mu dëkk démb ba bagage yi di génn amuñu taxaw taxaw di gis li mooy ba mu dëkk foofu am na ay dëkkandoo yoo xam ne chaque jour dégg nañ seen saagal dembee ak seen i kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo première partie boobu ci famille Mia yaakaar naa ni la ñuy wax wàccuma ci virgule yaayam bi ko jur jël doomam dem ba Zac mbaaw gaaree otoom jël ay bagaasu doomam waa Zac Mbao yëpp di ko seetaan yéen ngeen toog seen biir kër seen salon xëy suba pour am contenu am vue ngeen naan da ngeen di weddi loolu ki may weddi juddoogul ki may weddi dangay ngay liggéeyi ni man ni Messi mel ci bal saa Mané mel ko ci équipe nationale. waa Wally mel ko ci musique noonu la ma yàlla jagleel ci journaliste people journaliste d'investigation dem leen jàngiwaat bu baax ka topp lu mu wax lañu déglu ji version famille ku góor ki muy Abdou No Face waaw gis nga de man nag kaay ma expliqué la benn affaire man affaire bi bu muy am. waaw man bu ma bëgg di dugg ci ay coow jàmm. waaw c'est que bu mu amee. bi hmm. ma bi ma yeewoo gis ñu bind gis nga bind ko. Uh-huh. dama dama dama dama tiit xam nga xam nga lu tax. waaw parce que Nobel sama rakk la. Uh-huh. Nobel papaam papaam papaam euh, Cheikh Cheikh Baba Ly la gisee sama rakk yaay la Kumba Walit gisee. Uh-huh. Nobel seen mag bu digal seen taaw. sama yaay lañ ko gisee Kumba Walit gisee la tudd comme sama yaay. léegi gis nga Nobel bi affaire bi amee sama par hasard dafa daje moom li ko doon sañ. ñu plané waxtaan après mu ne ma voilà yow mbokk nga quoi kaa ma expliqué. Hmm. ñu ànd man ak moom ñu toog ñu wax xam nga lu ma ko njëkk a wax dama ko ne non fekk mu ne ma ne ko est ce que. dóoroo desi quoi. mu ne ma grand dóoru ma ko su ma ko dóoroo ñëw du ma la nëbb du ma la nëbb li xew. ne mhm. ko kon ana ma ne ko ana mu yaa instant yi su ma mënoon génn na ko bu ko accéléré bu ko bu bu ko accéléré du def dara parce que bu fekkee dafa mer instant bii nii ma mhm. ne ko bàyyi ko ko dal bul jéem a sax forcé ay waxtaan ak jëlee noonu. après su ko la ma nekk ay viñ leen expliqué mais lu ma jot a effectivement comme tout góor ah. mhm. sa jabar bu fekkante ne parce que def na ma carrément su ma xam nga nit buy wax ak yow na ma sama jabar mhm. bu sol bu solee loo xam ne def naan ma par bu sol loo xam ne man jëkkëram daf may allumé mhm. ko bàyyi mu génne loolu ci ba bi ma ne ko tu as parfaitement raison parce que loolu kenn bëggul loolu kenn bëggul tey dafa sos na ma voilà léegi nag après mënu ma bu mhm. ko waxee mi yaa solo noonu day dem mu ne ko li nga sol euh, baaxul quoi solal la mi yaa na ko ñu nekk ci boobu noonu ba mu jàpp saag bu Mia ne ko damay dagg saag bi quoi après ci la ko donc daggul ah, ko mais après nee na mu bañ a xëccoo mu bàyyi Mia dem Mia bi mu demee nee na après boo waxul dara parce que bu ma xamee ba ko ne noo fekk euh, wax mu dëgg parce que doo leen xëccoo leen amul benn dóoroo ko wala jàppal bàyyi kere kere mais amul mais moom li ma expliqué ak li ma dégg nii version bi Mia expliqué couple yëpp dañuy couple yëpp dañuy am problème euh, nga xam nga fii am na yaa ngi nga ci hôpital bi tey sa doom bu fekkee da nga ko bëgg sëyloo rek ah boo amee problème boo amee problème boo ko fayoo man man pour man sama xalaat problème boo amee woon man rek fekk nag tey nag moom day am ay problème man no fes laa ko waa laa ko no fes aku leen day droit tas dem ñaar leen day seen tudd ay katam moo ko moom mais maabo dafa am ñu ko am maabo Sénégal la ko moom amu fi ma ne ko te comme ay jalib kaa ma xamal la nag benn affaire. couple moom ah. couple farak gel sax dina am xeex. mais xam nga tamit dafa am benn affaire gis nga yow. change mhm. nante nga quoi ci dëkk bi nga dëkk. yow jël jarul loo yëkkati sa loxo. waaw góor sax jarul loo loxo. dëgg la yow boo jàppante da xol xol wàllu nga am quoi. parce que yow yow nelawee ñëw rek fàtte nga coow génn yëpp na ko amee aduna amul solo. ma si nekk di téye ay wax. ba pare ma ko ba pare man dama gaa xoolal sax moom moom sama sama soxna si moo mën a gis on ah, change vraiment moom xëy na ñooñu ñooñu ñoom ñoom mën nañu régler problème bi parce que sëram moom sëram daf ko ne moom day ut numéro Mia au Mia pour saraxu Mia Mia dellu si sëy parce que nee na groupe boobu sëy boobu waru fa dafa jël sénégalais ni ñuy xalaatee ci sëy mën nga régler sëy bi parce que yow am nga pouvoir boobu noonu man mënuma ko kenn mënu ko mais yow gaa yi jox nañ la nopp bi ngay tëgg naa wax naa wax noo fekk mu woona mais li gën doo defar lii daf parce que seen tubaab di nga nekk loolu dana ne sauver lii quoi yaa ngi ak numéro Mia noo koy dinaa ko wax mu woo la. même booy def dana même booy def dana alerte ci ci booy def alerte ci ci réseaux sociaux yi. waaw mais yi ñëpp ñi nga xam ne bëgg na ci Maabo bañ a tax. leen leen ngeen delloo ko. xam ne léegi moomatuñ seen bopp. waaw xaaral ma oo noo koy jox mu woo la. léegi moom il faut ñu raj la ko. barki yàlla gaa yu bëri loolu la ñu wax. mais comme temps wax na ko dëgg la ko. kon ñoo déggandoo ñaari version yooyu muy famille ku jigéen ki ak famille jëkkër gi kon yow mi ci dugg naan amul vidéo la fexeel ba génneel ñu vidéo bi mbaa ba génneel ñu son bi lu ñuy ñaan nag muy alerte biñ ma ñaan amul kenn ku suwete couple boobu divorcé couple référence la man mii li ma leen njëkk a wax bi ma ko déggee dama ne dama choqué wu couple la boo xamante ni couple bu ma nawoon la mooy li tubaab di wax tout ce qui brille n'est pas de l'or tey nag erreur la ku nekk da ngay am problème ak sa jabar Mia jël dem na kër yaayam yaayam jël na ay bagage no face mayu ko baat ku bëgg a jabaram la regretté na nee na dooru ko dafa xëccoog moom saak bi tout simplement tey Sénégal suñu sañoon couple bi du tas ndaxte ñëpp bëgg couple bi dellu soit kon ñi ngi ñaan njekk di was lu àq ci journal People sëykat alalu yàlla la te ñun luy defar moo ñu gënal luy yàq na ngi ñaan képp kuy bonne volonté soo ci mënee jàpp ba Mia ak Abdou ñu delluwaat seen biir kër ñu sëy donte am nañu benn doom Abdou jàng na ci leçon su doon da doon am dootul amati Mia dina xam ne muy taxawee kon ñu ngi koy ñaan képp koo xamante ni bon volonté nga soo ci mënee jàpp ñi ñaan njekk Mia na delluwaat yaayu Mia ñi koy ñaan njekk à travers journal people na woowaat Abdou ñuy waxtaan doomam dellu Abdou mi ngi jégalu nit kese la ku nekk da ngay am problème ñun ñëpp dañuy am problème ci suñu biir sëy keneen day am problème si biir sëyam mais yàlla nañu delluwaat sëy boobu Sénégal yëpp leen naw lañ doon wone Sénégal yëpp leen defoon référence kon tey sëy boobu su tasee ñu bare dinañu tiit kon lu ñuy wax lu ak xarit di ñaan la ñu mën Abdou wutal ay nit nga lu ji dem jëli sa jabar Mia jéggal ko yaayu Mia jéggal ko famille Mia jéggal leen Abdou ku bëgg a am la erreur moo ñëw couple moo demee noonu loolu mooy message bi ñu may yóbbante pour ma lancer ko pour ku ci mën a jàpp rek ba ñu delluwaat sëy bi taxaw kon yéen ñi taxaw di weddi taxaw leen di weddi rek ci lu seen yoon newul di ngeen yàgg tardé. ku siiw yéena ku siiwal dëgg ku yàqu it yéena ku yàq dëgg la man may laaj ginnaaw bu ñu jógee ci couplement ba boobu di Abdou ak